benen bi tamit ñu wax tuuti ci turu Rock Energy. bi nga xam ne tey Rock Energy, amul kenn kenn kenn koo xam ne manqué na tey ci bis bii beneen bi aussi ñu wax ci turu conseil municipal bi nga xam ni ñun la yàlla def ñu doon vice président commission sport et loisir di conseil municipal ñuy wax rek presse sénégalaise tey lii c'est une mal nécessaire li nga xam ni papa exclusion lañ ko def ci face ngi gërëm wa bu parce que liggéey nañ ci Papa saw ci carrière am carrière. waaye ki tax la li muy suñu xarit muy emblème parcelle di ngi nii toog bu bëgg ngeen tàcc ko bu mais papa ki tax ñu exclure la di nga xam tamit ñun tam

ñuy wax presse sénégalaise lii papa def te per Ba père Ba mi nga xam ne tey jii kenn la ci Parcelles Assainies pa Pam nga xam ne tey jii kenn la ci Parcelles Assainies bés bii mi ngi fàttali pap ah, ah, mi ngi fàttali Ousa Saw parce que Ousa Saw moo ñu doon tëggal fii ay mbapatu ngoon ñuy bëre ñu bëgg nekk fi mais ngeen tàcc Ousa Saw bu baax a baax a baax a baax a baax baax.

nga ñëw jàppale Papa Sow ci écurie bii nga xam ni moom lañ taxawal ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin ñuy wax nag suñu combat bi ñu jëm muy combat Modou Xarañ Lo bi nga xam ne moom la bëre bëgg a war a bëre titre roi des arènes coow li bare na trop ñi ngi dégg Abdou Bakhoum di wax ñi ngi dégg keneen di wax mais man du ma waxantu li ma lay wax jàpp leen ko incha allah ndam dina am te ndam li couronne bi dina reste au Parcelles Assainies incha allah rabi Papa jërëjëf soxna Baali ak maam Jaara Mbàkke bu suñu Abdou foofu laay commencé ci waa kër Serigne Touba laay commencé Cheikh Ahmad Bamba était certes une puissance innée la raison eh! ne parvient pas à eh! asservir ah, la selbe koo koy Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasuul eh! numéro 4 grand marabout bu Sénégal suñ ko moom doonte Sali Mbàkke avec Jaara Buso kanton juróom foofu laay commencé dama ci am contentement am bi am ci fier am ci fulla amoo ci amuñu ci nag raf-raf lu tax amuñu ci raf-raf Papa Sow ci boppam ñun ñoo maase juddoondoo Papa Sow ñun ñoo maase doo ma magee ko ñaari at man wàññu ma sama at bokkuma mbër yi nga xamante ne ñuy wàññi ay at naan 15 ans la am ak 12 ans te ñoom ñoo mag yonent xular man wàññu ma sama waaw man 77 laa judd le 20 septembre man wàññuma samaat xale bu ndaw mais boo tourné laaj mbër mi mu ne la 12 ans laa am fekk mbër mi moom ak maamam fii amul luñ ciy bàyyi di ñaanal nag waa Idil Faaf dina leen ñaanal waa Idil Faaf fa lañ jógee ndax Faaf ñun ñëpp fa lañ nekkee man mosuma fa am xaar ma yàlla Papa Sow mosuma fa am xaar ma yàlla jotul fa kenn loo gis rek par temps la bu jotee rek dafay jot moo tax bu ñu waxee Papa Sow jotul a faas kenn xuloo fa kenn man waxi no père ba musul joteeg histoire doomu aadama ñun xamuñu histoire ñun xam lan lañu xam ñoo Papa Sow ngemb dem di bëre ci stade nit tooñ ñu defantee moom ñu loolu lañu xam mais ñun xamuñu histoire di sant sama waa koñ ñoom maam Saliou mi nga xamante ni boo xamul maam Saliou ñu tuddee ko papis ñëpp xamoon ko su may bëre da ciy teg bakkanam muy soo kaana